aada yi di feddali kóllëre ak cofeel kilifa yi ne ci biir kër yi may sukk samay oom ci suuf di leen wax asalaamaaleykum ñu dellu si waat ci kàttanu yàlla fas yéene ànd ak yéen ziara sunu mbokk yi nga xamante ni ñu ngi tëdd ci lalu tawat yi di ñaan ci buur bi subhanahu wa taala mu faxas lépp ndax xam ngeen lu mu faxas mu set di ñaanal sunu mbokk yi nga xamante ni ñu ngi ci bërëbu yarukaay di ñaan rek ñu génn ak jàmm waaye di ñaanal way dawlu yàlla na leen yàlla xare àjjana ñun ñu fi desandi yàlla na yàlla ñor di fan yi te wéral cër yi mbokk yi ñu am mbégte ñëwaat ak yéen ci kàttanu yàlla seen émission bi ñuy woowee ëttu góor ñi di leen fàttali ni yéen a ngi ci ànd ak ñi ngeen ci tàmm àndal ci kàttanu yàlla ñu fas yéene ànd ak yéen dugg ci kër yi dugg ci biir néeg yi waxtaan ak mbokk yi nga xamante ni ñoom la yàlla booleel ñu toog ci biir kër gi muy diggante jëkkër ak jabar bu loolu jàllee dinañ wax ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy njaboot gi nekk ci biir kër gi génn ñu ko benn yoon waaye dinañ wax it ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci mbedd yi te jóge ci biir kër yi kon mbokk yi li ñuy def mooy delloo buum nga ca mboy mboy ga ndax xam ngeen ne thème bi bi nu ko yëkkatee tabarfakàlla macha allah mën naa ne léegi mi def def sax weer ci yaatu bi nga xamante ni yaatu na ko kon gannaaw bi ñu ci duggee ci xel ak ni nga xamante ni noonu la nit war a dundee dugg nañ ci it ci ni nga xamante ni moom lay amee ci diggante ñaari borom borom kër yi muy jëkkër ak jabar nekk bi nga xamante ni dinañ koy nekk ci biir néeg bi bi weesu nag ñu duggoon ci mbirum njaay mi newoon lépp loo xamante ne dañu koy jaay rek sell war na ci warula tilim warula def dara dafa war a set wicc ndax am na ci yenn njaay yoo xamante ni de kenn mënu koo raxas danga koy jënd rek sax yëkk jënd sàq mi lay doon du jaar ci safara du jaar ci ndox du jaar ci saabu du jaar ci dara kon mu nekk loo xamante ni tabaarkalla macha allah lu yaatu la woon am benn mbokk nag bu duggoon mu ne moom bu doon sagoom bu ñu gannaaw bu ñu waxee ci set jóge ci biir néeg ñëw ci biir yi ñëw ci lépp loo xamante ni rek santé ak doomu aadama la maanaam ak wér-gu-yaram la mu ne war nañu fexe waxtaan ci naka la ñuy lekkee kooku def ci am solo am na yenn lekk yoo xamante ni ku ko lekk ki ne mu julal la lor. am na yenn lekk yoo xamante ni ñaa ngi koy lekk te xamuñu ko am na loo xamante ni war nañu koo lekkee am na poids it maanaam li nga xamante ni dañu koy lekk am na nu mu war a toll mu nekk loo xamante ni tabarfakaala lu yaatu woon la mu am nag suñu mbokk moo xamante ni keroog woote woon na ñu rafetlu woon ñëwam fii ci rajo bi pour mu ñëw fekkee ko ndax nag dégg naa mbokk yi naan booy fexe ba booy def walla ngay wax dangay wax ak ñi xam nga walla boog booy def nga laaj ñi xam walla ñi nga xamante ni jot nañ koo dund kon ki nga xamante ni moom mooy sëriñ Samba Ndiaye moom mi ngi fii toog moom tam ñu ngi ko wax asalaamaaleykum di ko dalal jàmm di ko wo woo di ànd ak moom ci li nga xamante ni moom mooy liggéey bi ñu ngi doon rafetlu it teewaayu ki nga xaman ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor maanaam mbirum service d'hygiène bi waaye yàlla dogaloo ko ko xëy na du ñàkk ëllëg mu am kenn ci ñoom bu mu ko ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi ndax xam ngeen ni set bu ñu koy wax jëmal ko ci askan bi rek dañu bëgg ñëpp jafaru ndax xam ngeen ni wér-gi-yaram ci la lépp xej kon loolu moo waral mu tëddee noonu kon ñu wax Abou Diagne asalaamaaleykum ñu xaarandi ki nga xamante ne moom mooy mataax mu dallu tuuti Abou asalaamaaleykum.
waaleykum salaam suna wàll gépp daanaka boo ko xoolee am na lu bari luñ ci laal kon tey ki nga xam ne mooy sëñ Samba Ndiaye woote woon fi keroog doon wax ne it lu ñu set set set gi di gën a am importance tamit mooy nit ki na xam li muy lekk ak quantité bi nan la war a toll mu di lu am solo gannaaw bu ñu setalee xol yi setal yére yi setal mbedd mi defe naa setal biir bi tamit am na ci solo donc si gàtt na rek xëy na comme moom xam-xamam màcc na si loolu may delloo kii di sama nijaay Matar wala moom sax nee na woon du ma ko wax daal Matar Soare sax laay wax ñu ko delloo kàddu kon grand Matar Soare rek bisimilah.
jërëjëf loo wax baax na li ngay bëgg a wax baax na waaye di sant rek ak di gërëm di delloo njukkal bu baax. waaw maa ngi jégalu sama sama patron maa ngi lay jégalu bu baax mbirum oto yeeg circulation ak escalier yi. circulation escalier yi ak circulation tëri bi ñoom ñaar yëpp laa boole moo tax bi ma ñëw ma xaw a tardé waaye maa ngi lay jégalu. di sant gannaaw bu ñu sant yàlla bu baax di julli di sëlmal ci sangu sang yi Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ñu ngi nuyu bokki Sénégal yëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh di gërëm góor ak jigéen mag ak ndaw di sant nag ñi nga xam ne moom ñuy bokk liggéey bi bu ñu nee bokk liggéey bi mooy mama Mari ba nga xam ne nekk ci jàppandal bi ak ay bokkam bokki boppam ak ay bokki jote naa ñoom ñëpp leen sant di leen gërëm di gërëm Ablaye Diagne Yoff nag ak bokki léegi yëpp bàyyi nañu kenn di sant nag mbokk mi nga xam ne moo teew ci teewaay bi ndax nag wax dëgg yàlla rafetlu nañu ko bu baax a baax ndax bokk na ci ñi la déglu da ngay wax ni waxtaan lañ koy wax du gën a xam waaye nag yàlla dafa dogal mu nekk fii yéen ngeen nekk ci dikk waaye léeg-léeg ñu am ci gis-gis ci li ñuy wax loo xam ne intérêt parce que wax na keroog wax ju am solo ndax dafa ne yéen li ngeen di wax léeg-léeg da ngeen di jàppale docteur yi ndax docteur amul droit sol daalam kër gu ne mu ne mu leen bàyyi leen lekk sàngam di leen lekk sàngam lekk leen ñam sàngam lekk leen ci lu toll na sàngam mën ñu moom moom bu ñu amee ñoo waxtaanee affaire set togg ñoom mu set ak toog gi ñu set fi ñu koy place man li may jënkaane kaay ndax man ni dañu ne ku am gan man naa yëpp ko reer mbaa nga tëraan te gan gi ñëw na te dafa naa ni nga xam ne moom taxoon jóg li ñuy wax affaire bi wax nañu set laaj yaa ñu wax na ko léegi dëmm bu xasee xale bu xasee set jëmmal ko yore set yore mi set ñu fexe ba ni ñu dugal ci biir yi set dafa naa dafay daal di jeex man nag li may dénk tuuti rek mooy man comme ni ñu doon wax rek ñi nga xamante ne jaay yi waxoon nañu ba pare li may dénk maanaam mooy ñi nga xam ne day saraf taali bi yi yelloon ñoom boo xam ne dafa faral waaye dafa yàmb mu mu wóor na lii amuloo ci wóor di ñemaa la ko jox ko doom ñu jox ko doomu jàmm kooku dañ koy bàyyi waaw mu nekk loo xam ni bëgg naa nag ñu bàyyi ko fi ma jaaraat ndax foofu la ñu yegg seegul woon li ci des nag dañuy dañuy dañuy dal.
am na solo am na solo lu am solo nga wax.
waaw ndax nag dafa métti nag. parce que koo xam ne amul ndey amul bàyyi. sëriñ la àndal te xëy na ko gis du bari ci wàll rek.
te bi nga koy jox dafay fekk sax mu xiif ndeysaan.
waaw te yàlla dafa ne bu ngeen saraxi saraxi leen li ngeen gën a bëgg.
bëgg dëgg waaye jekk loo xam ne yow soxlootoo ko. wóolootoo ko jox sa doom nga fekk doomi jàmbur nga jox ko ko te doom yëpp benn la. métti na ñi nga xam ne dañuy saraxee ñam.
Dëgg la.
ñam yi nag bu xasee soppee ko bu yow mu ne mën a toog a lekk xam nga ni mën a toog a lekk. te biir yi benn la mi def benn la nga sarax ko doomu jàmbur mu lekk ko dara jot ko te moom la mu li mu yóbbu këram sax dëgg taw xaatuma lu mu fajoo. wala ku ko toppatoo bon yaa ngi koy tooñ bon nañ koy bàyyi xel.
Rafet na.
te bon day saraxe. tey saraxe ñam wala leneen nga xool.
ñu taal wala boog bu fekkee am na ci ñenn ñoo xamante ni fekk seen dugg dafa fekk ñu congelé ko mu nekk seen frigo kon duñ ci soxlante sax di dem marché kon mën naa ne Sénégal fii quatre-vingt-quinze pour cent yëpp dañuy naajee añ bala ñuy añ rek une heure dafa jot wala deux heures kon ñi nga xamante ni ñoom ñoo féete ci waañ bi tey togg togg parax-parax yi daal mbokk yi mën naa ñàkk ndax ceeb yi ñorul yi ndax xolal légume boo ko xesee ba ñulug ah dafa am durée boo xamante ni da nga ko ci bàyyi ba mu ñor ba mu yebbi boo bëggee sa ceeb jaar yoon waaye boo bëggee it nit ñi lekk lu baax waaye doo resi léegi ñu ne ko léegi tey léegi soor léegi musiba lay doon ndax ceeb bi du ñor li ci war a nekk ñor xomm pour mu dem ci biir mu mu am njariñ loolu yëpp dafay fekk ni dara ñoru ci te mën naa jur lor jur lor ndax am na ci yenn légumes yoo xamante ni nit ñi dañ koy lekk surtout boo mel ni maman am na ci yoo xamante ni da nga koy bëgg doo seet ñor na wala ñor da nga jël rek lekk ndax bëgg gi nga ko bëgg boo sàgganul nag boo ko defee ñaari fan ñetti fan boo sàgganul doo taxali ko biir bi métti muy benn togg yi nañuy bàyyi muy ñor même bu fekkee dañu naaje nañu bàyyi mu ñor li ci war ci légumes yi pour temps bi mu war a def pour mu ñor ak ceeb bi euh, temps bi nga xamante ne war na ko def ci temps bi ba mu ñor nañ ko bàyyi mu ñor xom ra- ndax ceeb yi ñorul li daf métti biir dong lay indi kon mu nekk loo xamante ni dama koy dénk sama mbokku auditeurs yi dénk ko sama mbokku jigéen ñi ndax nag euh, am na ci ñoo xamante ne mënu noo wax dañu mel ni surga ay surga lañu dañu mel ni man amuñu taamu ñeme wu ñu wax ni ceeb bi ñorul ñeme wu ñu wax dara bu ñu ko taajee foog ñu lekk ko ndax am ñu leneen lu ñu lekk ak yeneen ak yeneen yu nekk ci biir togg bi ni mu war a selle dëgg la gaa parce que dañuy faral di wax naan ci ndu xas ba dugg ba mu bax rek microbe ya dee na waaye am na ci benn degré boo xamante ne bu ko baxul microbe bi mënul dee am na microbe yoo xamante ne baxal rayu leen da nga leen di baxal ñu ne cocc taxaw di la xool kon hygiène bi ci war a am mooy raxas légumes yi ndox yi nga xamante ne dañ koy raxase légumes yi nanu ko sàmm ndox yi nga xamante ne weer wàlla nga tëraani waaye gan yi duñu duñu tëraani mëpp dañuy ànd ak moom rek sa mbaxloo ci biir néeg bi ndax xej na ci kon di wax ki nga xamante ne moom mooy Sëriñ Sàmba Njaay bismillah bismillah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uxdatan min lisaani yafaqu xawli asalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin ah ñu ngi nuyu kii nga xam ne mooy Ben Bass Diagne di di- di njiitu rajo bi ah di ko ñaanal yàlla bàyyi ko suñ kanam mu gën fee yàgg ah di leen nuyu yéen ñi nga xam ne aussi maanaam la yow mi di Laye Diagne mama ba ak kii di Makhtar Souare yéen a tax ma xam tey jii rajo Dunia ba toog fi mën a waxtaan ak mbokki auditeurs yi mën a waxtaan ak mbokki taalibe yi ah bu loolu weesoo ñu ngi nuyu it ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu si diine muy ku mel ni imam Moustapha Gueye ak oustaz Moustapha Ndaw si leeral bi ñuy leeral diine te yàgg si lool. bu loolu weesoo ñu ngi maa ngi nuyu aussi sama mbokk yi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu faj ñu ko mel ni sëriñ Abdoulaye Pouy ah kii di sëriñ Malema Ndiaye ak suñ papa Souleymane Niang Ibrahima Ngom ak kii di Mouhamadou Fata Sarr si yëngu bi ñuy yëngu si wàllu faj ah tey jii nag li ma bëggoon a yëkkati mooy waxtaan si wàllu lekk maanaam li nit war a lekk ak nan la ko war a lekke ndaxte lekk si ñaari fànn lañ ko mën a situer benn bi muy alxas xarsu muy maanaam li nga xam ne dafa jóge si wàllu mbay wala wa nasl mooy maa xam ne waa dafa jóge si wàllu jur gi ah lekk googu boo ko xoolee li ko composé lii rek la da see am lekk yoo xamante ne maanaam dañoo riche en protéines maanaam li ñu naan protéine moom moo nekk seen si ñoom am si lekk yoo xamante ne dañoo riche si lii ñu naan lipide am si ñoo xamante ne dañoo riche si lii ñu naan glucide am si ñoo xamante ni ay vitamines ak ay sels minéraux ñoo ko composé ah yi nga xam ni maanaam dañoo riche ci protéine mën nañ see lim lii di mooy eh, ñu koy wax yàpp lii di jën muy jën bi nga xam ne bu tooy bi la wala li ñu naan géej gi lii di meew lii di lu mel ni ñebbe lii di netetu lu mel ni ay pois wala gerte gu wow yooyu wala nen yooyu maanaam mooy aliments yi nga xam dañoo riche en protéines